Alaaji Abdu Kan ku fonkoon ayatul kursi la ku ko fonkoon la ku ko fonkoon la moom nee gisul ku ko saxoo ba dara man ci yow dara mu daf ko daan wax koor sax ñaari rakk la daan naafila ne xaw ma jëf ju rëy jëf ju yàlla nangu la koor bu naafilaa ñaari ràkk yeewi ñëpp yeewi gan ñëpp te gan ñi kat alaaji Amadou Deme ngi alaaji Taali Lo ngi Babacar Sèye ngi ci ganam ñi lañu bokk ci koor bi alaaji Abdou Aziz rek la fonkoon ci àdduna moom la jëloon taf ci dënnam ak àggoon na ci bu allah jaab du nekkee këram dootul sol dàll ba allah du ni ko dootuma fi ñëw feek doo sol dàll dootuma fi ñëw looloo tax mu mujj di sol dàll xaritam la woon la woon bu mu ma faf ko yokk ndax fa laa daan nekk mu di ma jàngal yàlla xam na ko yàlla xam na ko kon nag affaire bango ak sama américaine bi ak sama américaine bi Yeah. kon nag ñuy jàng fatiha teg ci ñetti salaatul fatiha ñaan ci daraja yonent bi moom rekk a nu dese yàlla taxawu nu tëbb leer te may nu lu nu suturloo dana ko yàlla def could have been a really great thing. Jika terlihat, Insya Allah. Bismillah.